bismillahi rahmaani rahim barke borom Tuuba mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ñëwaat ci liggéey bi sëñ alxaaji Mbàkke bi ci téere yi jëm ci garabuk Tuuba ñu toll ci juróom ñaareel bi muy téere bu fees dell ak i njariñ ni mele ko jiitu woon ñu ngi ñaan liggéey bi yàlla na doon liggéey bu sëriñ tuuba nangu xaada lahu llahu maxtaar laho biir nangu googu yàll na ci yàll nañu ci defal taw fiix ba lii ñuy def it mu nangu ko ci biir nangu googu laafaale ci mboole ñi nga xam ne ñu ngi ciy sonn ci ak diglu ak ak wut ak ak safoo yàll na sëriñ tuuba boole loolu lépp nangu ko dugal ko ci biir liggéeyam bu sunu borom bi nangu di ñaane sëñ alxaaji Mbàkke yàlla na sunu borom yokku fanam guddal ko lool wéral ko lool musal ko lool may ko ndam ak ngërëmam saahiram baatin téere bi kon fii la ko tàmbalee dani a'uudu billahi min ashaytaani rajim wa inni uhiisuha bika wa dhurriyataha min ashaytaani rajim rabbi a'uudu bika min hamazati shayatin wa a'uudu bika rabbi an yahdurun bismillahi arrahmani irrahim اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة وسلاما وبركة تقود بها للشيخ القديم القائل ظلالي إلى جنات باخ توسعت وكلي ومالي صان حام مشاسس ما اخترت ورديت له في الحال والمآل هونك يا معين وبك نستعين نونغي جال أنك مريدي ci dénkaanay borom tuuba xaada lahoo lahu maxtaaral lahoo aki laabiram ku xool diwaanu diyaafatul xudus wala yashum raihataha dayfu iblis da nga gis lii nuy waxi walaf lépp sëriñ bi moo ko bind ci arab wallahu aalam ñu ñëw ci bu njëkk bi maa ngi sant yàlla subhanahu wa taala mi ma xamal ni wërsëgu ruux yi moo gën a tedd ci wërsëgu yaram yi ruux yi ñaxam xam yàlla subhanahu wa taala la ñuy dunde te loolu day sax dundu yaram nag saxul te sunu boroom moo digle nuy sàkku dundug ruux yi waaye dundug yaram yi moo ko gàddu moo tax ñi yeewu dañuy hittewoo lañu leen digal saa suñu hittewoo lañu leen digal njariñu lañu leen gàddul daldi leen di fekk si ñi réer nag dañuy hittewoo lañu leen gàddul bàyyi lañu leen digal su ko defee njariñ la raw leen ak njariñu lañu leen digal loolu moo di perte gu leer naññ sunu boroom subhaanahu wa taala nee na bindu ma nit ak ginne lu dul ñu may jaamu ba tey nee na lépp lu nekk ci kaw suuf si maa gàddu wërsëgam kon yow sama mbokk del jaamu yàlla mii jariñe dana la indil lépp lu mu la tànnal ci njariñ yi te danga jariñu ci bàyyi gi ngay bàyyi lépp lu ñu la tànnalul yow sama mbokk del moytu pexey bakkan del daw jëm ci yàlla subhanahu wa taala del tuumaal sa bakkan tey rafet njottu ci yàlla subhanahu wa taala ak yonante bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ak mbooleem soppe yàlla yi subhanahu wa kon yàlla dana la jariñ ci lépp lu mu la tànnal ci lu dul benn lor tey ak ëllëg man mii di wax gis naa ci lii malay lay wax loo xam ni dolli na ma ak gëm ak lislaam ak rafetal ndax jamono yi ma doon jihaatanteeg sama bakkan ngir jëmmi yàlla subhanahu wa amul lenn lu ma bàyyi woon lu dul sunu boroom jox na ma lu ko gàcceel ci kun fa yakun jàpp lenn ci dagan yi ngir jëmm yàlla subhanahu taala lu dul sunu boroom defal na ma ko muy ak jaamu mel ni aw tur ci turam yi wu ñuy tudd te loolu yomb na yàlla subhanahu wa taala sama mbokk del wetli ko yàlla subhanahu bala ngaa dajeeg moom boo dee wetlikoo yàlla subhanahu wa taala boo ak moom noppulu ci kudul moom waxtu wu nekk bul fàtte la ilaha illa allah muhammadun rasulullahi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama loolu loolu moo di deel jaamu yàlla subhanahu wa taala ci sunna si yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama mu doon sa yoonu ajjana lépp lu lay jariñ fa yàlla subhanahu wa taala dee ko jariñoo lépp lu lay lor fa moom bàyyi ko sunu boroom subhanahu képp ku koy jaamu mu lay jariñ ku koy mooy mu wàññi la foo tollu del tuub lépp loo xam ni du ngërëmul sunu boroom subhanahu wa taala te yéene aw yiw suba ngoon guddeeg lii boo ko defee danga wor adduna te moom du la wor del faral di wax audu billahi من الشيطان الرجيم سكم كتن أك بسم الله الرحمن الرحيم أك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم bari looy muslu saytaane dala ciy musal bari looy wax laa hawla wala quwata illa billahi al-ali al-asim dalay dëgëral naka noonu bari looy wax bismillahi rahman rahim day boole melo yu baax yi ci yow subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin mi ngi ci diwaanu diyaafatil xudus ci xatu turwa wallahu aalam sëriñ bi xaada lahoo laahu maxtaar lahoo bi mu ci lori bakkan ak bànneex ak saytaane ak adduna daa xam ne ni sunu boroom musal na ko ci daa di ni yéen ñi ma topp maa ngi leen di digal ngeen sàmmoon teeg lii may bëgg a bind bu ngeen ko defee jariñu bu ngeen ko deful ci yéen lay dellu diglu leen lii may wax nangu ko bu leen wuuteeg sariixa mukk ak li ngeen man ci xaqiiqa sariixatu mooy wetal yàlla subhanahu wa te yéene aw yiw di jëf ndigal yi di bàyyi tere yi xaqiiqa mooy lu ngeen di def ci yooyu yi yàllay kese tax lépp lu war wala ñu sopp ko dee leen ko def te di leen yéwénal ci yu dagan lépp lu ñu araamal wala ñu sib ko dee leen ko moytu bu leen weesu sariha ak xaqiqa dem ci leen am na lu nekk ci seen kanam loo xam ni war naa tax ngeen dégg li ma wax te nangu ko bu leen adduna wor bu leen seytaane wor dee leen tuub te jéggale am na lu nekk ci seen kanam loo xam ni war na ngeen yeewu ci te ci yeete wallahu ala ma naqulu wakil loolu ba tey ci diyaafatu xuddoos ci xatu juróom wallahu alam Sëriñ Tuuba xaada lahoo laahu maxtaara lahoo nee na ñeenti xeeti cant yépp ci yàlla lay dellu subhanahu wa ba ci njëkk mooy sant gi muy sant boppam mel ni laysa ka mitlihi shay'un bu ñaareel bu mooy sant gi jaam bi di sant boroomam ndax boroomam moo ko defal li tax mu koy sant bu ñetteel bi mooy sant gi yàlla subhanahu wa taala di sant ab jaamam ndax ca dëgg-dëgg moo ko def waaye jaam ba deful mel ni nixmal abdu bu ñeenteel ba mooy sant gi jaam bi di sant moroomam ndax li ko moroomam defal ba mu koy sant ci yàlla subhanahu wa la bàyyi ko sunu boroom mooy buur bi nga xam ni moom rek lan war jaamu kudul moom da koo war di jaamu ku doylu la ci boppam te ñépp dañuy aajowoo jëm ci moom képp ku jariñu ci adduna moo la jariñ képp ku am lor moo maandu ci yow képp ku mucc ëllëg moo musal ku muccul moo maandu ci yow képp ku jëf lu tol ni fepp suuf ci lu baax wala lu bon dana la ko wan bu ëllëgee yal na nu dimbale ci jaamu ko te may nu ak gindiku jubal nu saxal nu ci yoon wu jub nuy def li war ci nun tey moytu lépp lu xaraam wala lu ñu sib loolu mi ngi ci diiwaanu diyaafatul xuddoos ci xatu wit di juróom ñett wallahu aalam sunu boroom kenn la mësu fee jug te dee sax faaw moo yëkkati asamaan si te amul lenn lu ko téye ci suuf moo tàllal suuf si mu nekk ci kaw am ndox moo bind lépp te xam na lépp mooy seddale wërsëgi te du fàtte kenn amul baay amul doom kenn jigewu ko ci ak mbokk amul am nawle kenn la loolu mi ngi ci di yaafatul xuddoos ba tey ci xatu juróom ñett wallahu aalam ñu ñëw ci bu juróomeel bi mu ni sëriñ bi xaada la wallahu maxtaar la nee na képp ku gis lii nanga xam ni dama jublu saabaroom boroom subhaanahu ci taalif yoo xam ni jullit yépp danañu ci jariñu góor ak jigéen mboolem la ma bindoon ci géej ga liggéeyal yonante bi la sallallahu taala alayhi bi alihi wa ak sikar ak sant ak jihaad du leneen moo tax ma nëbbu ko ba noppi tere ku koy tuxal mboolem mbind ya ci ya jiitu géej gi nag nanguwuñ ci dara képp ku bëgg a jariñu adduna ak alaxira del farlu ci li ma bind li tàmbalee baksasin mooy ama shahid naa karam bind yooyu kawe na kawe ñoo kawe lu dut alxuraan ak hadis ci lu wér am nañu barke boo xam ni nekku ci yeneen taalif yi ba tey mi ngi ci xatu juróom-ñeent ci diiwaanu diyaafatul xuddoos wallahu aalam sëriñ bi xaadalahoo allahu maxtaaralahoo nee na boo bëggee jàng alxuraan da nga génn ci lépp loo xam ni sunu boroom tànnalu la ko te fas yéenee dugg ca la mu tànnal boo dee jàng ak xasida ci sama xasaayidi fas ci loo bëgg danga ko am bu neexee yàlla subhanahu wa bu fekkee daa bokk ci li ma wax ginnaaw ba ma jugee jolof wala ca an ma laata ma fay juge bu dee xasaayid yi leen jiitu moom waxuma leen boo dee tàmbali wird danga nga cee fas yàlla subhanahu wa taala la ci adduna ak allaaxira ci lu dul lor ak jige ko moog yonante bi alayhi wasalaam bi alihi wa jige gu lay jariñ te du la lor boo dee naafile da nga ci fas yéenee dundal sunna su yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi te jàng ci saar yu gàtt yi yu la neex loolu ba tey mi ngi ci xatu fukk sëriñ ngoone jàng radiallahu taala anhu la ko doon wax laaj yi sëriñ bi xaada lahoo allahu maxtaara moo ko doon tontu borom ndar ci laaj yu mu ko laajoon li lixlaas la bind ba noppi wax lii lan mooy cës cëslaayal yoonu murid imaan ci tawxiit te mooy gëm yàlla subhanahu wa taala ca nañu ko war a gëme ak di def ay ndigalam ca nañu ko war a defe ak di leen sellal ca nañu ko war a sellale loolu mooy cëslaayul yoonu murid fan la juddoo ku juddu ci réewum jullit ku nekk foofee mu juddoo mooy judduwaayam bërëbam itam noonu ñan ñooy ñi ko njëkk a topp ñooy ñi daan jàng lan mooy jublu gi jëmmi yàlla subhanahu taala yan réew la murid bi di mën a dem réewi jullit yépp fan mooy bërëb faatoom képp ku bokk ci boroom tariixa yi fu mu faatoo mooy bërëbam ñan ñoo ci des dëgg dëgg ba léegi ñooy ñi gëm yàlla subhanahu wa taala tey wéyal ay santaaneem ngir jëmmam kepp kan moo ko njëkk a dundal ci Afrique ku ñuy wax cheikh Abdou Khadir Aljiliyu ak cheikh Abu Hasan Achazaliyu ak cheikh Ahmadu Tijaaniyu radiallahu taala anhu lan moo dugal yoon wi ci réew yi sëriñ yi yegg ci yàlla subhaanahu wa taala di ci yeggalee fu ñu mën a nekk fan lañu ñu ci réew yi fii nu toll nag bareetul ñu hittewoo yoon wu jub yi ñan ñoo ko njëkk jële ci sëriñ yooyu ñooy ñi bëgg jëmmi yàlla subhanahu wa ca jamono yu yonente bi taala alayhi wa sallama alihi wa sahbihi wa ba sunu jamono ji lan mooy taarixam mooy gàddaayu yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi ba at mii may bind muy Hamza Sine ñan ñooy kilifa yoon wi fii nu toll kilifa dëgg dëgg de suti ci ci sa jëmm fuy sa cosaan samay cosaan ñooy ñi gëm yàlla subhanahu wa taala tey wéyal ay santaaneem ngir moom képp wan waxtu nga dugg ci yoon wi jël naa ko ci ay nit ngir jàppoon ni ay dëgg dëgg kilifa lañu ci yoon wi ginnaaw ba ma xam ni demewul noona bi ma saa yóbboo ca géeja la ma yonante bi jox ñetti wirdu yépp ci jëmmi boppam sallallahu taala alayhi wa alihi wa sallam ngir bërig lu ma ko liggéeyal boobee la ma dénk alquran ak l'islam wallahu ala ma naqulu wakil loolu ba tey mi ngi ci diyaafatul quddus ci xatu fukk ak ñaar wallahu alam ñu ñëw ci juróom ñetteel bi sëriñ bi xaada lahoo law maxtaara lahoo nee na kuy bëgg a naan wala muy bëgg a lekk na wax bismillahi almaaxi almusaxsihi dadani wal amraat bu noppee wax bismillahi الحمد لله المثبت المصحح البدن والأعراض كنان اتاي ولا كفي بنوبي نوخ لي الحمد لله الذي سقانا خير شراب والعدا وخانا لول باتاي مين تي ديافه القدوس تي خاتو فوك اك نيت والله اعلم سونو بروم يال نان يال نانا نو موسال تي جوبلو لو خامني داراي سيتانه دا تيا نيك تي باس باسام اك وخام ak i jëfam ak i jikkoom yàlla nanga ko soxlaa ci kudul nun loolu mi ci xatu fukk ak ñeent sëriñ bi xaadalahoo laahu maxtaar leen nee na bëgguma damm xalaatub kenn képp ku bëgg a ñëw ci man ci lu dul ndigalul kilifaam te mu wóor ko ni bu ñëwee mu naqari kilifaam bu mu ñëw ndax soril yàqu-yàqu yi képp kuy woote ni maa ko yilif maa ngi koy digal jaamu yàlla subhanahu wa ak topp yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama tey bàyyi lépp luy dammu xalaatu ni ñi jàmm ak mucc ñoo gën lu dul ñoom subhana rabbika rabbil xissati ama yasifuun wa salaamun ala al walhamdulillahi rabbil alamin loolu ba tey mi ngi ci diwaanu diyaafatul ci xatu fukk ak ñeent wallahu aalam ñu ñu jàlli baxa tey sëñ waxam ju tee ju sell ju neex ji ci fukkeel bi ak benn sëriñ bi xaada la wallaahu maxtaar la woon nee na na xam ni maa tere képp ku aju ci man muy jox jigéen lu ëpp ñaari téeméer ci ak can bu dee ko am alal bu dee ko amul alal ñaari téeméer yu manki juróom fukk ku bëgg barke ak njariñ na nga taxaw ci ñaari lim yooyu ku leen weesu na xam ni ku def la ko neex taseeg la ko naqari maa ngi digal gore yi ñuy baña a jigéen ga ngir ñàkk a matuk can gi wala ñu koy sartal naan ko faww xaalis lay doon ndax mën naa joxe lu dul xaalis mel ni aw fas wala ak jur waaye lu mel noonu bu ñu koy xayma boroom kër bi du ko xayma gore yi duñu ko xayma ñeneen ñu maanu ñoo koy xayma boroom kër bi itam bala moo sañ takkaat seneen soxna faaw motal faaw mu matal cen nga ba noppi doonte soxna ñeenteel la wassalaam loolu mi ngi ci xatu fukk ak juróom wallahu aalam sëriñ bi xaada la laaw maxtaara lahoo nee na boroom nit ñi yónni na ki gën ci nit ñi ci nit ñi ci xatu fukk ak juróom bi xaada lahoo laaw maxtaara lahoo bi sallallahu taala bi alihi wa sahbihi sunu boroom moo ko yónni ku ko topp sunu boroom la topp moom nag ay pas-pasam ak i waxam ak jëfam lépp lu baax la luy baaxal day jaamu yàlla subhanahu wa taala ngir mu tàbbal ñu ajjana waaye jaamulu ngir tàbbi fa li ko waral moo di ajjana ak sawara moo tax yàlla bind leen am na nag ñaari leer leeruk xëcc ak leeruk jeñ leeruk xëcc ki ci lay xëcc ay soppeem jëme leen ajjana leeruk jeñ gi ci lay jeñe ay noonam jëmaleen sawara loolu mi ngi ci xatu fukk ak juróom benn ci diwaan boobu wallahu aalam sëriñ bi xaada lahoo laahu lahoo nee na sunu boroom subhanahu wa taala may na ko ci attaaya ak teral ak tawfeex aku wuyu ak yaqiin may na ko ci barke akuk jàppandal ci lu wóor ak tawfeex soril ko mbooleem yàqu-yàqu yi ak gàkk yi ak nax yi sunu borom subhanahu wa taala may na ko ci atum bam sasin ak sant gudul ànd ak jàmbat mandal ko te dootu mar sedd wicc ci xisaabi adduna ak ëllëg ak nguur gu sax dak loolu ba tey mi ngi ci diyaafatul xuddoos ci xatu fukk ak juróom benn wallahu aalam sëriñ bi xaada la laaw maxtaara la nee na sunu borom subhanahu wa taala am na te nekkul jëm ju ñuy làmb di ko daj ndax wuute naag yépp ku am kàttan la akuk nammeel gu safaanoog gu mbindee fi ndax moo ni bind nit muy ko doyadi bu fekkoon xel bokkut ci ay mbindeefam kon dana ko mën a jot ba ba saafonteeg moom waaye mbindeef la te musuta deñ di doon mbindeef te du di doon mbindeef sunu borom subhanahu wa taala buur la te musuta deñ di doon buur te du di doon buur mindeef ab jaam la te mësuta dañ di doon ab jaam te du dañ di doon ab jaam sunu borom subhanahu wa taala tàmbalewul fenn yemul fenn nuroowul ak lenn wala kenn du jëmm ju ñuy làmb di ko daj du aw melo itam wuy dugg ci biir jëmm ko am kàttan la dara mënta am te neexu ko xam na lépp day dund di dégg di gis di wax loolu mi ngi ci diwaan boobu ba tey ci xëya xatu fukk ak juróom ñaar sëriñ bi xaada la wallahu maxtaara la woon nee na yàlla subhanahu wa kenn la mooy teral ñëpp ci adduna mooy teral jun ñi ñi ëllëg buur la njëkk amul mbindeef yi ak bi ñu amee ak bu ñu ñàkkaatee amul kenn ku koy ñaareel képp ku jariñu ci adduna moo la jariñ kenn mënta mucc ëllëg te musalu la duma leen tegtal ku dul moom duma leen jëmee ci ku dul moom fukk juróom ñaar ci diwaan boobu muy diwaanu diyaafatul xuddoos wallahu alam sëriñ bi xaada la wallahu maxtaar la nee na képp ku gis lii may bëgg a bind nanga xam ni mi ngi jóge ci ak laabiir bàyyi leen jaw daw leen seeni ayib moo gën di tudd ayibi jaamur dee leen musal góor ñi ak jigéen ñi ci seen lori làmmiñ ak lori seeni loxo dee leen moytu wooteb seytaane ndax lépp lu mu leen woo bu ngeen ko wuyoo lu leen di jëmale sawara képp la wala ci gàcca bu ngeen bëggee ràññee ab wooteem da di xool li toq ci seenum xel bu ngeen ko gisee mu bokk ci liimaan ak lislaam ak ihsaan ne leen wóor ni woote yàlla subhanahu wa bu fekkee bokkul ak ñett yi nag woote saytaane la wala xiyaasu billahi taala dee leen moytu lekk lu xaraam ak lu lënt lekk lu xaraam dana waral du ngeen mën a def lu baax dee leen doyloo li yàlla xam ci yéen te bañ a doyloo xamug nit ñi bu ngeen dee bëgg a werante wala biijoo képp ku ñëw ci yéen bëgg werante wala mu bëgg a biijoo bu fekkee yéen a nekk ci dëgg bu leen ko wuyu bu fekkee yéen a nekkul ci dëgg tuub leen dellu ci yàlla subhanahu wa mi xam lu nëbbu ak lu feeñ kon dana leen jéggal suturaal leen seen xawra di leen def lu baax ndax ngeen texe loolu mi ngi xatu fukk ak juróom ñett ci diwaan bu wallahu aalam sëriñ bi xaada lahu wallahu maxtaara lahu ginnaaw bi mu julloo ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi la tàmmuli di tontu kii ni lan mooy tijji buntu njëggal loola laaj muy tuub bak bàkkaar yépp tey réccu fas yéenee baña dellu ci bàkkaar li feeg yaa ngi dund lan mooy waral mën a bàyyi mooy yàlla subhanahu wa taala mooy bàyyi toogaaleeg ñi mooy yàlla subhanahu wa taala lan mooy waral taalibe bi sopp ab sëriñam muy topp ay ndigalam bàyyi ay tereem tey rafet njott ci moom lan mooy waral sëriñ bi sopp taalibe bi gis gi muy gis mu aju ci moom ngir bëgg a àgg ba noppi di gaaw di topp ay ndigalam di bàyyi ay tereem te du ko diingat ci saahir du ko diingat ci baatin su ko defee safaan yi noonu la demee su ko defee safaan yi noonu la deme te ñooy nuur ci bàkkaar ak yéexe jëf ju baax ak sop ñi mooy yàlla subhanahu wa taala ak bañ a topp ndigal bañ a ay tere ak ñaaw njot ak bañ aju ci sëriñ bi ngir yàlla subhanahu képp kuy def safaan yi safaanu bi ma waxoon lay am li nga xam ni day dimbulee ci yépp moo di wéeru ci yàlla subhanahu wa taala ak sëriñ bi lay yar maa ngi lay digal ragal yàlla subhanahu wa tey topp ndigali tey moytu tere yi tey ami teggiin sa kem kàttan teggiin day feg yu bon yi di suturaal lu bon ba mujj mu mel ni aw yiw barke mi ngi juddoo ci ragal yàlla subhanahu wa ak teggin képp ku ragal yàlla subhanahu wa taala te ami teggin daa am barke ci saahir ak baatin wala ci saahir képp wala ci baatin képp del muñ lépp lu baax ba di ko taqoo del muñ lépp lu bon ba doo ko def baat yi dénkaane bu am njariñ la dee ko jëfe yow sama doom bu baax wassalaamu aleykum wa taala wa lool ba tey mi ngi ci diwaanu diyaafatil quddus ci xatu ñaar fukk ak benn wallahu aalam bi xaada lahoo allahu maxtaara lahoo bi mu musloo ci saytaane sant yàlla subhanahu wa julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama mi ngi xamal ki muy bind bataaxal bi ni ko laaj yi mu doon laaj agsi na ci moom ba tey wane na hittewoo gumu hittewoo bataaxal bi lool door a tàmbuli wax lii li ngay naan lan mooy xilla bi tax ñuy jiital muslu ci seytaane ci wax bismillahi rahmaani rahim maa ngi lay xamal ni ahootu billahi mina seytaani rajim mooy jiitu ci am njàng ci mboolem jullit ñi njariñ li tax muy jiitu laa lay xamal donte am na addis boo xam ni yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa daa wax ni lépp loo xam ni duñu ko doore bismillahi rahmaani am barke te xadis bu wér la li waral jiital gi moo di set ci hay bi moo war a jiitu teggin yi ak ngëneeli da ngaa war a dëddu lépp lu dul yàlla subhanahu wa taala jublu yàlla subhanahu wa taala ci misaal muslim mi ngi mel ni yëglu ak fëgg boo bëggee dugg xam nga ni ku ñëw ci buntu buur doo dugg te yëgluwoo naka noonu kii bëgg jàng alxuraan daa mel ni kuy bëgg a wàqanteeg boroomam aajana mu set te fekk na làmmiñam takk lool ci sobe su waxe neen yi ak fen yi mu daa di koy raxas ci auzu billahi min ashaytaani rajim ndax sunu borom képp ku sàkku ci moom ak mucc dana la musal ci seytaana ak jépp lor safaanu kudul sàkku ci moom loolu am na ci nit yàlla yi ko wax ni baat bii mooy baat bi nga xam ni ñi jige yàlla ci la ñuy jaare ku ragal ci ngay jàpp ba mucc ku nar a xalku ci ngay dellu su ko defee nga wax ahonsu billahi mina shaytaan rajim mooy li sax ci nettali yi jugee ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa sabi wa salama ndax nee na noonu yi la ko ko sayiduna jibril alayhi salaamu jàngale mu jugee ca xalima ga ak lawhul mahfuz li sayduna jibrilu njëkk a ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa sabi wa salama mooy ahonsu billahi mina shaytaan rajim ak bismillahi rahmaani rahim ak iqra bismi rabbik li ngay laaj naan ndax kuy naafila ci saar yu gàtt yi day wax audu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim buy tàmbuli julli ak ci bépp rakka am ci saar wi day wax bismillahi rahmaani rahim bañ a muslu ni mu ñëwee ci kaamil bi nga xam ni ba ci wittar buy jàng lexlaas ak fàllax ak naasi day wax bismillahi rahmaani rahim benn yoon ci lexlaasi mu doy am déet mel na ni li ci al mu dawana mooy dagan nga mooy mooy dagan na nga wax aousu billahi min asheytan rajim bismillahi arrahman rahim njëkk fatiha ak ginnaawam te mooy njëkk saar wi moo xam da ngay béral wala da ngay am na ñu wax ni dañuy sip kuy béral aousu billahi min asheytan rajim ci julli naafile wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu diyaafatul xudduus la nekk ba tey ci xatu ñaar fukk ak juróom ñoo ci ba tey ñaar fukkeel bi ci lañ toll sëriñ bi xaada lahu wallahu maxtaar lahoo am na laaj yu mu doon tontu yu bari ci baat yu ñuy faral di wax ci tasawuf daa di li nga may laaj lan mooy alfanaau zahira ak fanaaul batin alfanaau zahir moom lay sarraani ci suuf man nag baat yi ni ma ni mu ko indee ci xarab rek lay indi xëy na ñi mu doon seen hitte danañu ko xam waaye bëgguma di wax loo xam ni bokkut ak la jublu wallahu aalam moo tax kon ñu alfanaau zahira la ko laaj ak alfanaul batin ak fanaau mooy bañ a génn sareha lool mooy alfanaau zahir alfanaul batin mooy bañ a génn xaqiqa lan mooy shuhud ak mushahada su suxoon mooy di jéem a jigéen yàlla subhanahu wa taala musaahada mooy yàlla subhanahu wa taala la boppam jige goo xam ni ku ca àggul du ko xam lan mooy wusuul ak wisaal wusuul mooy gis yàlla subhanahu ci lépp ci say bët wisaal mooy bañ a gisati kudul moom ci sa bëti xol lan mooy al ahadiya ak wax wax waaxidiya ahadiya mooy génne ku dul yàlla subhanahu wa taala ci sab xol waahidiya mooy génne bëgg a jëm ci lu dul moom ci sab xol lan mooy teqale ak taxayur ak alxayra taxayuru mu yaa koy jéem alxayratu day dikkal boppam ci lu dul benn sabab lan mooy teqale maxwu ak maxwul maxwi maxwu mooy ñàkk a gis lu dul payug yàlla subhanahu maxwul max wi mooy ñàkk a gis li ngay def ci yiw te ñu jëm ci sa boroom li ñuy wax naan doo xam tur wi li feeg nekkoo ko ak li ñuy wax naan xam tur wi du mbir lii mbir dëgg mooy nekk jëmmi tur wi mooy lan laaj yu mel noonu duma ci xuus léegi mën naa am yàlla subhanahu wa taala xamal la ci lu la doy lan moo waral murid di jëriñootuñu ji jamono ji ak sëriñ si ni ñu bëree ak lan mooy mandargay ab sëriñ ñàkk jariñu muridi mi ngi juddoo ci ñàkk gi xoli sëriñ si ñàkk njariñ ginnaaw bi mu ci nekkee wala ñàkk gu ci njariñ ñàkk dugg far wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu loolu ba tey mi ngi ci xëtu ñaar fukk ak juróom ñaar wallahu alam sëriñ bi xaada lahu allahu maxtaar lahoo bi mu musloo ci saytaane ni mu ko baaxoo defe buy tàmbali sant yàlla subhanahu wa taala mii def lu ko neex ca lu ko neex daa julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sahbihi wa tagg ko ci la wax lii am na lu man ñetti bayit yu ma defoon di ci junju ay mbóot yoo xam ni ñi koy hittewoo ci nit ñu baax ni danañu ci jariñu mooy bayit yi ma tënkee alif laam miim إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ولا تجادلوا أهل الكتاب مي الله من كل كريم أكرم من أمه قاد له التكرم أسلم له كلك عن إيمان ولازم الإحسان للرحمن واجه بالشكر بلا كفران تقفى حسابه مع النيران سنبرهم سبحانه وتعالى موغن باخ كيب كوباخ نخ كيب كوباخ موكو باخل ku ko jublu mu teral ko faw ci lu dul benn coona ndax sunu boroom subhanahu wa du yes du tas yaakaar mukk ku ko ñaanit mu wuyu la jublu ko ci alxuraan nag bokk na ci jublu yi gën a màgg te gën a am njariñ maa ngi lay digal yow taalibe bi nga gëm yàlla subhanahu wa taala tey topp ay ndigalam jox ko sa lépp te lépp dëppoog yoonu yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi tey sellal ngir jëmmam lépp lu war jërul diisoo boo koy def danga ko koo war a gaaw a def bala mu raw lu ñu sopp noonu lu xaraam ak lu ñu sib bàyyi leen jërul diisoo ak kenn dañu leen a war a bàyyi bu gaaw loo xam ni daa dagan boo ci fasee mën a def yu war yi ak yu ñu sopp yi naka noonu la boo ko ci fasul ak neen la boo ko ci fasul ak neenal dund la ku gëm yàlla subhanahu wa taala mucc na ci keefar kuy topp ci ay cëram mucc na ci ak caay-caay kuy sellal mucc na ci ngistal maa ngi lay digal ngay jublu sa di ko sant ci xéewal yi mu la defal te bañ leen a weddi ñoom xéewal yi boo dee sant xéewal yi dañuy sax boo leen weddee ñu dem boo dee sant duñu la xisaab ci adduna ak fanu jëm te da mucc ci sawara su ko defee nii ma ko tegalee te mooy tàmbulee alif laam miim ba ca maa infiquun ak inama sabilu ba ca maa tasnaun ak wala tujaadiloo ba ca wannaasi am na ngëneel lu màgg lool ak tuya ba juréy lool doonte yeneen dog yi noonu la doonte yeneen dog yi noonu la mel itam képp ku koy taqoo nii bis bu set doo bu fekk mokkal nga ko da am yaqin fii ak feneen danga nga mucc ci xëccoo ak biijoo ak iñaanante kuy def beneen dog itam ngir jëmmi yàlla subhanahu wa taala na cee am yii ma wax yépp ci baaxuk sunu boroom subhanahu wa taala lii ma andi nag tuute la ci lu bari lool subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoon wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ñu ñëw ci ñaar fukk bi ak ñaar sëriñ bi xaada lahoo laahu maxtaar lahoo bi mu xamlee téere bi nii la ko tudde muy diyaafatun li ba al asbiyaai fi ijabatin an salatati asya ci la di sant yàlla subhanahu wa mi defal yonente bi mi defal yonente yi alayhim ak waxyu ak mucc ba duñu def bàkkaar defal wàllu yu li ñuy wax yenkwal wala ak sol ba noppi wattu leen ba tey jàll na julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama wax di li ngay laaj ndax murid mën naa doylu ci sëriñ bi ko yar ab murid akub sëriñ kenn mënu cee doylu bàyyi yàlla subhanahu wa naka noonu mboole mindeefi nit ñëpp dañuy aajowoo jëm ci seen boroom subhanahu wa te moom du aajowoo jëm ci kenn kuy wax ni doylu na ci yàlla subhanahu wa dañ koy jay te daa waru wala iyaasu billahi taala xoolal firawna ba muy wax naan maay seen boroom subhanahu wa taala yee ko ci géej ga ca nelawi kéefar ga mu nekkoon ni nu ko yàlla subhanahu wa taala nettalee diggam ak muusa alayhi salaatu wassalaam wa ala jamihil anbiyaai wal mursalin mu mujj naan amul benn buur budul bi bannoo israila gëm man ci jullit ñi laa bokk loolu ngay dégg ci téere yi ñuy wax naan murid bi daa war di topp sëriñam ci lépp lu mu ko digal loolu dañu koy wax ci wàlluk yar ndax sëriñ bi yar du digal taalibe bi mukk lu dul ndigali yàlla subhanahu wa du ko tegtal itam ci lenn lu dul yàlla subhanahu wa ku lay tegtal ku dul yàlla subhanahu wa taala da lay réeral dee ko daw sunu boroom moo andi murid yi ci seeni sëriñ ngir ñuy jaare ci ñoom ñuy dox seen diggante ak moom du caagee ni ñu leen di jaamu ndax jaamu moom yàlla rekk lees ko war a defal moom mi wax ni bindu ma nit ak ginne lu dul ñu jaamu ma li ngay laaj ndax murit bi mën naa jox jëfam yu baax yépp ab sëriñam bu mat sëriñ sëriñ yi xam yàlla subhanahu wa taala sunu borom dana leen jox loo xam ni ñi leen sopp seeni ñaawteef aw yiw lay doon am na loo xam ni deefu ko bind deefu ko wax def koy xam di ci sant yàlla subhanahu wa taala am bu bëggee sëriñam bu wér ci xolam sunu borom subhanahu da koy daal di bëgg ndax la tax mu bëgg sëriñ bi du dara lu dul yàlla subhanahu wa taala te yërmande yàlla subhanahu wa taala xajoo na lépp li ngay wax naan ma xamal la loo xam ni da ma ci man di ñaanal mu may jariñ te duma lor ndax bari na ñu may ñaanal te fekk dañu may lor loolu xamal ni ci mbóot yi la képp ku may ñaanal na may sàkku lama saa boroom tànnal tey ëllëg te mooy mu wax lii allahumma bi haqqi wajhi llahi taala alkarim صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنين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 qabla alhibati wa inda xusuliha wa baada xusuliha abadan amin ya rabbal alamin li ngay laaj nan lan mooy ak murid ci gàttal mooy topp ndigal bañ a diŋat rafet njott ci lépp tey moytu lépp lu ñu la tere ci zahir ak baatin tey ami teggiin ci zahir ak baatin tey bàyyi lépp lu amul njariñ ci wax ak i jëf ak yeneen yoo xam ni bu ko dee ak yeneen yoo xam ni ak yeneen yoo xam ni bu ma ko dee tudd dana gudd subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al sëriñ bi xaada lahoo law maxtaar bi mu tàmbalee julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam nee bayit yi muy bëgg a def da koo def ab yóbbal ci kuy siyaare daa ñaanal subhanahu wa taala nangu seenub siyaar ci nangu gu rafet nangu itam bayit yi kem ak màggam moom sunu boroom subhanahu wa taala door a wax lii yéen ñi may siyaar lii ma leen di wax nangu leen ko kon dana leen jariñ seeni jëf na tuuti ci yéen doonte da ngeen a gën a jaamu ñépp ndax xaqi sunu boroom subhanahu wa moo gën a màgg lépp loolu moo waral yonente bi sallallahu taala alayhi wa sahbihi wa ba mu naafila ba ay tànkam newi di toq deret ba ñu ko waxee lu tax ngay def lii te sunu boroom jéggal la la wéy ak lii ñëw mu ni ndax duma sant ki ma defal loolu man mi loolu moo waral ma baril xasaayid yi lool bi ma nekkee ci géej ga ngir sant yàlla subhanahu wa taala ak liggéey yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa na ci li yàlla may subhanahu wa ci sama xasiida yi géej gi boole nañu maqaamay jaami yàlla yépp wallahu yaxtassu bi rahmatihi man yashaa wallahu dol fadlil asim dee toroxlu tey xeeb seen bopp tey ragal ay gàkk tey ragal ay gàkk di dugg ci seeni jëf ak seeni xam-xam képp ku sellalul ci taq-taq yi lépp lu mu def dana ko yàqaat ci naw ko wala rëy wala ndéggatal loolu moo waral mbooleem taalif yi ma defoon njëkk may dem ci géej gi ma bàyyi leen ndax booba dama dama mel ni jullit ñi dong te mooy doyloo saahir bañ a sellal biir gi bu leen def dara te amul leen ci ndigalul seeni sëriñ bu ngeen bokk bu ngeen bokkee nekk ci benn barab bu ngeen bokkul bërëb bu ngeen nekk lu ngeen di def na ngeen di fas ànd caag ñoom ab sëriñ bu motee lépp lu ab taalubeem dugg te doonul lañu ko tànnal dana ko ca mën a génne ak lu mu sori sori dee leen sopp seenu sëriñ ngir jëmmi yàlla subhanahu sopp gu sell képp ku sopp ab sëriñam ngir jëmmi yàlla subhanahu wa taala sunu boroom dana ko tàbbal àjjana képp ku sopp ab sëriñ ngir lu dul yàlla subhanahu wa du jariñu ci moom du jariñu ci beneen sëriñ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 ma tàmbuli di ko liggéeyal ba ci atum ay sachin bi ma génnee ci atum jaysas laa tàmbulee jaxatanteeg sama bakkan ak adduna ak saytaane ak balneex yal na nu mucc ci ñoom ba ci atum lasasin ci atum bal balsasin laa noppi ci jaxatanteeg noon yi tàmbulee sant yàlla subhanahu wa taala maa ngi digal képp ku gis lii ma bind nga teral ki ko yor sa kem kàttan digal naa ko taalibe yépp ak mbokk yi digal naa ko taalibe yépp ak mbokk te ngeen wóolu ni na ci ñi jige sunu borom subhanahu wa taala ibnu abdullahi alfa xiyu la tudd képp ku def li ma wax sunu borom moo gàddu ak fayam bisub gaaw bi ma bind lii mooy bis bi yi bàyyee jëm si ci man ba faaw wallahu ala ma naqulun wakil لول من خطو فان وير جروم نيار تي ديوانو ديافه القدوس والله اعلم تروي كيم دون واخ ليك موي البشير ابن عبد الله الفغي سرين بخاد له الله مختار له نينا دي لين تقو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أك سبحان الله وبعمده سبحان الله العظيم yonente bi sallallahu taala bi alihi wa sahbi wa sallama leen seenu pakk ñu ni ko ndax am noon la bu teew mu ni déedéet ci sawara laa wax ñu ni ko luy sunu pakk ci sawara mu ni subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim bu ëllëgee dañu leen di dugal àjjana di leen soril sawara di leen wattu ba tey yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa am na ñaari baat yu woyof ci làmmiñ te di fa ñuy natte jëf te sunu boroom bëgg leen muy subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim loolu mi ngi ci xatu fanweer ak juróom ci diwaan boobu ba sëriñ bi xaadalahoo allahu maxtaaralahoo nee na maa ngi lay diggal taqu taqoo julli juróom ak li nga man ci naafile te néewal say wax ci lu amul njariñ lépp lu lay daxa def lu xaraam wala lu ñu sib bàyyi ko del ami teggin ci say waajur ak képp koy jaxasool teggin dara mënta rafet te andu ci wassalaam loolu mi ngi ci xadwoo ba tey ci diwaanu diyaafatul quddus wallahu aalam sëriñ bi xaada lahu laaw maxtaar lahu nee na deel farlu ci lépp lu ñu la digal bul sàggan lépp lu amul njariñ bul ko def bul yeexe lu baax deel gaawi lépp lu ñu la digal deel jàng tey ami yar kon da xam da jariñu tey ak ëllëg loolu mi ngi ci xatu fanweer ak juróom-ñeent ci diiwaanu diyaafatul quddus wallahu aalam